ay simili néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor. ak Dakarnet ci réew mi. Ndiaga ak Bouba ak Youssou Ndour gis nañ li mu def yëpp ci doomam. ne gumbawul nag da daan wax ak moom. ne mu dégg ci moom muy wax ci ñoom lu rafet. ne muy sant soxnaam bu baax a baax a baax. ndax bàyyi ko benn nee na ndax bàyyiwu ko benn yoon mu wéet. su nee su ko bàyyi woon mu wéet moom mii lay sonal. nee na ndax xam na ni moom mii sunu yaay rayaana wérul te yaramam neexul. nee su demee ci moom bay wax ak moom ba Ablaay jooy day tourné ne ko Ablaay lan ngay jooy. ñu ne ko bul jooy de. nee mi ne ko moom su demee bay jooy rek du jooy. nee mu taxaw ko fu ne moom Ablaye Ndiaye. nee na loo xalaat ci lu baax. foo xalaat ci lu baax ab Ablaye Ndiaye taxaw na ko fa. nee fu mu mas waxee rek ne ko yaay. nee bala maa am lu ma neex dama laa génne ci kër gi nga ne. nee ko yaay bu ma amoon pàkk ba tabax ko ba mu yegg ba dugal la ci rek moo ma moo ma gënal. waaye ne ko fii nga dëkk neexuma de yaay mi ne ko loolu la yàlla dogal nee mi ngi gërëm Souleymane ndax Souleymane bàyyiwu ko benn yoon mu wéet nee na papay Souleymane ak moom mii rayaa na ñoo bokk ndey ak baay waaye musu ko bàyyi benn yoon moom Souleymane mu ne ko saa bu ko wootee mi ne ko bàjjen jàmm rek jàmm rek moo fi xew. ban ko mujjee nee ba mu ko mujjee woo fii barki démb. baatam bi ñagas lool mi ne ko Ablaye yaa baatam bi ñagas lool mi ne ko Ablaye yaa ngi may nax. nee mi ne ko du dara daal di bàyyi téléphone. mi ne ko jox ma awa. mi ne ko jox ma awa. mi ko awa lan la. mi ne ko awa lan la. mi ne ko lan moo xuural baatu Ablaye bi nii. mi ne ko Ablaye dafa nangu la lekk. mu ne ko jox leen ko lu tàng ndax baatam bi ibbeeku nee booba xam na ni ab Ablaay day dem yàlla na suuf sedd ci kawam yàlla na suuf sedd ci kawam yàlla na suuf sedd ci kawam yàlla na suuf sedd ci kawam nee musu koo def dara lu ko naqari nee na dara naqariwu ko ci Ablaye Ndiaye. nee bu nu jàppante ba jàppante ba mu tàng. day albatiku ñëw ne ko yaay. lan ngay mer bul mer baal maak nee xam na ko xam na ni xaalis rek la bëgg. nee mu dank lu bari jox ko moom mi. ne ko ne ko baal ma àq waay. mi ne ko boo ko deful woon danaa la def. nee na loolu rek la xam. yàlla na suuf sedd ci kaw nee jërë ngeen jëf waa Futurs Médias jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf yàlla na suuf sedd yaayam ne ko sañseel naa ko de yaayam ne ko sañseel naa ko de yonent bi yëkkati Ibrahima yonent bi yëkkati Ibrahima taf ko ci dënnam nee taf ko ci dënnam ndax bég gi mu bég ci Ibrahima ni mu sañsee pour ànd ak moom julli ji tabaski nee na ndax bég gi mu bég ci Ibrahima ni mu sañsee ngir ànd ak moom julli ji tabaski mu wàccee ko ci ay loxoom. ne mu wàccee ko ci ay loxoom. Ibrahima faatu ci ay loxoom. Ibrahima faatu ci ay loxoom. ci bisu tabaski. ne ci bisu tabaski. mu boole ñaari naqar. nee mu boole ñaari naqar. bis bi ñi di feetu ci la ñàkk doomam. bis bi jullit ñi di feetu ci la ñàkk doomam. keroog bi muy denc Ibrahima. ne keroog bi muy denc Ibrahima. yéeféeri màkk yi. yéeféeru màkk yi. dañu ñëw di ko saboote. ne danoo ñëw di ko saboote. ne ko bu yàlla bëggoon. ne ko bu yàlla bëggoon. du tànn sa doom ji nga gën a bëgg. du tànn sa doom ji nga gën a bëgg. di ko rey bisu tabaski. ne di ko rey bisu tabaski. waaye yàlla ne ko muñal. waaye yàlla ne ko muñal. jaxalee naa la déegu kawsara. ne ko jaxalee naa la déegu kawsara. inna a'taynaaka al-kawsara. inna a'taynaaka al-kawsara. fasalli li rabbika wanhar. fasalli li rabbika wanhar. inna shaani'aka huwal abtar. inna shaani'aka huwal abtar. koo mën a ñàkk ci àddina. ne koo mën a ñàkk ci àddina. na sa xel dem ci Seydina Muhammad. na sa xel dem ci Seydina Muhammad. ku muñ rek. ne ku muñ rek. yàlla fay la. yàlla fay la. kon nag ñu ngi lay dénk nga muñ. ne kon ñu ngi lay dénk nga muñ. yàlla mi la dénkoon njaay. yàlla mi la dénkoon njaay. la seetaan ne du la seetaan mukk yàlla dana ànd ak yow yàlla dana ànd ak njaay fa mu jëm te njaay fa mu jëm yonent bi bi dana ko teew yàlla dana ko yóbbu àjjana ndax nit bu génnee àdduna seede yi nit yi di def ci moom la yàllay déglu nee na loolu la yàllay déglu te ñëpp a seede ni njaay nit ku baax a la yàlla bu ko cat jiitu fa mu jëm nee ñi àndoon ak moom muy télévision Futurs Médias muy mais kenn ëpp leen nakkar tey kenn desu fa tey kenn desu fa ñëpp a ñëw ñëpp ñëw ngir lan ngir lan wane ni wane ni njaay mii kat njaay mii ci ñoom la bokk ci ñoom la bokk